fenn di fa dund eh, ca du ca ca du dee donc kon day mel ne kon traitement yi bi nga xamee ne gis nañ ne ay am na li ñuy tuddee cas communautaire nga xam ne foo dem léegi da nga gis kaa yoo xam ne nii doo xam ki ko wàll fu mu ne la ñu la ñu wax ne na bu ñu nañu fexat kon ba ba ba ñu traité fépp fépp foo xam ne nit ñi dañ fay dajee moo xam marché la gare routière moo xam structure de santé la ñu koy traité ba pare nag ñu gën a fàttali ne service d'hygiène loolu da cee am liggéey bu am solo ndax ci xeexu Covid bi service d'hygiène am na ay équipe yoo xam ne dañu nekk ci centre de traitement traitement yi fi nga xam ne fi la yi ne su ko defee di dimbali ñuy faj ndax ñiy faj dañoo exposé wu ci virus bi buñ leen amul ñu leen dimbali jàppale leen mën nañoo jël virus bi donc dañ leen di dimbali ci ni ñu sole seen euh, blouson yi ni ñu koy sumee di traité euh, barab yi ndax foofu tamit service euh, virus bi mën na mën na mën na mën na nekk ci jagu ji déchets yi nga xam ne moom la ñuy produire foofu tamit ñu di ko mën a éliminer ci condition yoo xam ne daal du du wàll nit ñi du wàll population yi te loolu service d'hygiène daf koy def ci structure yi mais bu loolu jàllee li ma fàttali woon léegi buñ génnee barab yi barab yi nga xam ne nit ñi dañ nit ñi dañ fay dajee tamit dañ koy pompe école yeeg mosquée yi structure de santé yi muy liggéey bu am solo boo xam ne nii tey nag ñuy lancer nag euh, opération boo xam ne nii danoo am sunu benn partenaire projet bu nekk USAID e ñu koy wax médicament technologie et produit pharmaceutiques boo xam ne ne gisoon na service d'hygiène liggéey bu am solo bi muy def waaye gisoon na ne tam service d'hygiène soxla na ñu jàppale leen ngir liggéey bi gën a baax ci leen ñëwee waxtaan ak ñun wax ñu fi nu mën a jàppalee ak ci yenn anam lañ ko defee ñu ne ñu mën nañ loo fexe ba seen agent yi ngeen am yëpp ñu former leen ci liggéey bi ban gën koo pan tàggat leen ba nga xam ne fu agence du d'hygiène nekk rek bu buñ ko fëggee buñ ko dóor ne fëgg fëgg jógal rek fekk na xam ne li mu war a def loolu nag dañ ko ba ba noppi tamit bis bu ñuy def liggéey bi dana ñëw ànd kook ñun jàppale nu ci ci agent yi ñu leen di lu li ñu soxla yu bari yoo xam ne ñoom dañu ko yoral kon vraiment ñi ngi profité ci au nom di colonel Maodo Malick euh, Diop bi nga xam ne mooy kilifa service d'hygiène pour véritablement remercier leen ci xalaat boobu ñu am ak confiance boobu ñu am ngir ñëw ànd ak ñun liggéey bii. ndax gis nañ ne ñaari at yi saa su ne ci conseil des ministres yi mu doon fàttali ne nañu jàppale service d'hygiène jox leen ay moyens moyens yoo xam dañuy renforcer seen personnel jox leen équipement ay oto ak appareils yi nga xam ne moom la ñuy liggéey bi mu ko defee ba feer bi ñëw nag ban xam dëgg dëgg nag service d'hygiène rôle bi mu war a jël moom dafa génnee dix milliards bëgg ma mu jàdd fenn benn dërëm jàdd ci fenn lu dul ci service d'hygiène heureusement fekkoon na ne am nañ fi plan stratégique bu am solo boo xam ne loolu lépp xalaatoon nañ ko biñ ko ko présenté mu ne arrêté naa ko nangu naa ko daal tàmbali ci saasa génnee 3 milliards et quelque génn jënd ci oto yi nga xam ne tey moom leen visité nga xam ne danañ ko yóbbu ci région yëpp région bu ne da nga am sa oto département bu ne am sa oto région Diourbel dana am aussi ay moyens ak i matériel am ndax xam nañ liggéey bu am solo bi ñuy def compte tenu importance région bi nga xam ne tuubaa dafa nekk ci biir nga xam ne dafa bari lu fi nit ñi ñëw ñii di siyaare ñii di màggal te yooyu yëpp di yu am solo yoo xam ne nii tax na ba ñoom ñëpp danañ jot ci lu gën a gaaw matériel boobu pour que liggéey bi vraiment ñu gën koo def ni ko bëggee. ñun kay euh, gis nga avant sax ñuy am kaawu Covid fii Sénégal avant sax ñuy am kaawu Covid nga xam dañ ko doon dégg rek ci réew yi lan tàmbali woon di liggéey ndax xam nga si liggéeyu service d'hygiène dafa yaatu benn dafa war a waxtaan ak nit ñi yee pour que comportement yi nga xam ne moo baax pour que ñu mën a bañ a jël maladie bi ñu mën koo xam loolu moom tàmbali woon nañ ko mu mel ne raxas loxo yi ndox ak saabu euh, fonk banaa règle d'hygiène yi nga xam ne moom même bu woon Covid sax nit ñi dañoo war di fonk les di d'hygiène ndax feebar yu bëree bëree bëri bëri buñ farataaloon euh, set gi mën nañ ko wàññi donc service d'hygiène moom tàmbali woon nañ liggéeyam avant sax kaa yi am bi kaa yi amee nag moom laa fàttali ne la dañoo am ay équipe ci centre de traitement yi ba pare liggéey bi dañ ko def ci marché yi di ko def lii tout Touba gi ñëw nañ fi ay yoon yoon yoon lii nag bi liggéey bi doxee ba mu yàgg nag partenaire bii nga xam ne moom mooy euh, euh, partenaire nga xam ne projet USAID la médicament technologie ak produit pharmaceutique dafa gis liggéey bi ñuy def mu am solo te mu xam ne ñii ko yaakaar naa ne su ma leen jàppalee dooleel leen liggéey bi dina gën a baax mais xaaruñu ba léegi ñu koy door def liggéey la boo xam ne fekkoon nañu ci waaye nag permettre nañu nag kanam ñu gën a renforcer suñu liggéey gën a am ay moyens heureusement aussi mu ñëw dajee ak matériel yi nga xam ne jox nañu ko kon ñun fi mu ne daanaka day mel ne bal bi mi ngi ci sunu camp ca danañ fexe ba résultat mérité ko. déedéet du du am conséquence ndax xam nga lu lu mel ne marché ku koy traité doo ko traité bëccëg ndax nit ñaa nga fa produit yi doo ko def ci nit ñi da ngay bàyyi ba ñu tëj marché bi nga ànd ak maire yi fekk waxtaan na nag ñoom ba ñu ubbi mbedd yin mën a jaar su ko defee guddi gi bala ñuy xëy ñu pompé yëpp.